yéen ñi xam-xam itéel ci seen jotaayu kàggu mag ñi di dox ci wàllu astraar ak pajum cosaan ak aada fii ci jàmm ji info point net kon nag bu ko kenn wuti jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi sa safo jàmm ji info di leen jaajëfalaat saa su ne ci waxtu wi euh, seen jotaayu kàggu mag ñi seen jotaayu kàggu mag ñi am mbégte itam dellusiwaat yaakaar naa dootu ñu leen ko euh, présenté di euh, docteur Cheikh Ousmane Mbow bu ñu ko waxee itam Euh, dafa doy sëkk bu ñu waxee docteur yi itam kii euh, faj ci wàllum zahir ak baatin ñu di ko ziarat bu baax a baax rawatina si weeru chahru ramadan al mubarak ci koor gi itam ñu fekk si ko ginnaaw ci xam nañ yitte yi bari na waaye saa suñ ko soxla itam ngir réew mi itam mu fas yéene ci ànd ak ñun kon di ko jaajëfalaat bu baax ginnaaw bu ñu ko ndokkelee euh, docteur Cheikh Ousmane Mbow asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Mouhamadul Muntaxa maa ngi lay nuyu di la ziara di nuyu seetaan yëpp ak ñi ñu seetaanut waaye di ziyaara kilifa yi nga xam ne uuf nañ mbooloo mu bari ci diine ji ci Sénégal bépp kilifa bu ilif mbooloo rek ak ku iliful mbooloo ñu ngi lay fekk fi nga toog di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullah wa rawatina nag ñi ilif mbooloo ndax yàlla moo leen ko jagleel te di leen ñaanal yàlla yàlla nangu seen ñaan parce que gis naa ci baatin ne jamono ji ñu toll li ëpp si ñoom nelawatuñ yendaltuñ pour jaami réew mi dinañ ci wax ci kanam kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla nangu ko waaye tamit di nuyu kilifa yi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllu aada ci réew mi moo xam ñi yëngatu ci politique ak ñu yëngatu ci leneen lu du politique rawatina ki ci yàlla jiital ci réew mi actuellement muy président Macky Sall ak ñoom ñuy yëngatu yëpp opposition beeg ñëpp ñu ngi leen di nuyu te li leen ñaan yàlla wér ak xel mu rafet te tey ak jàmm ju rëy jàmm ju yaatu te barke ku ci ne ci ñoom taxawaay bi mu am yenn jig askan bi alaakulaalin duñ guddal nuyoo bi donte li nekk ci xol bi mën nañ koo fësal ci làmmiñ ndax bañ temps bu gudd ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi ziyaara ñëpp bismillah jërëjëf si euh, Cheikh Ousmane Mbow tabarkalla yaakaar naa tey moom la ñu fekk si waatam tey euh, nañ ko waxee saa su ne fii ki résidence ci diwaanu Parcelles Assainies unité 13 euh, ñu fas nag waxtaan nag li yitteel askan wi ak réew mi tabarkalla docteur mu mel ni ginnaaw bañ la ndokkale itam ci weer wi weer bu sell bu tedd wi dañuy ñëw nag tuuti waxtaan ci jamono ni koy doon defee saa su ne ci wàllum analyse bu ñu koy wax ci wàllum baatin ñu si bare bare point fort bu ñuy wax point fort maanaam jagle bi sunu borom def ci wàllum biddéew nga di ko yàgg di saytu euh, moo xam tey nit ki nekk jege la tout près wala à distance mën ko ko wax loolu xamante ni tabarkàlla yàgg nañ lay invité ci plateau télévision fa lañ la découvrir xam yow yaay kan euh, ma ñëw ci wàllu dañu yàgg dégg ci njiitu réew mi nga daawoon wax ba muy gën a metti nga taxaw wax ne ki mu jëm dina nekk jëm joo xam ne dina jàmbaare lool ci wàllu projet am day gën a fës mais mujj bu jëm ci boppam yaa ngi ci doon wax ñu ci bëri ba ngay wax loolu dañu bëgg tamit nga décortiquer waat ko mu mujjam mujjam ci côté baatin ci wàllum biddéew naka nga ko gisee ndax jamono ji tam fi ñu toll réew mi xaw na tagga tembe ak lu ñu mënta wax réew mi jaxasoo na. alhamdulilah xam nga bu ñuy wax mujj ci côté biddéew dafa am biddéew yoo xam ne bu ñu falu nguur day yomb bu ñuy wàcc day sedd am ñoo xam ne bu ñuy falu nguur day yomb waaye bu ñuy wàcc day métti. bi maanaa neexaayu nguur wala projet yu bari yoo yaakaar ne yow rek yaa ko mën a doxal olo ñi la jege wala neexaayu nguur wala sax jàpp nga ne ñi la war a uutu gisoo fi ko ñeme pour mu gérer dëkk bi ndax am yoo yoo yëg yoo xam te jàpp nga ne yow yaa ci war a mën dara gis-gis yooyu dafay waral wut euh, nguur ubbeekuwaat ci jaam bi nga xam ne ñi dañ doon xaar mu jeexal nguur boo seetee président bi ma lay wax ne mu jëm laa ragal boobu yu bari xewul nitu nguur la tamit te laa chakkate li tegte ne nitu nguur la régime am ni mu tàngee terewut sànc yu bari mu ngi dox ñu ngi koy tàmbali mu ngi dox mu ngi egg kon maa ngi leen di xamal ne borom bopp la loolu moom maa ngi leen koy xamal mujj gi rafet tamit daneen am loo xam ne ci wàllu bilan lay aju am loo xam ne euh, bilan bi maanaam lu mu jot liggéey waaye dina am loo xam ne la koy gàllankoor du nekk ci li liggéey bi waaye dafay nekk ci dundinu nit ñi dafay nekk ci relation ak nit ñi dafay nekk ci ay waxam dafay nekk ci projet yoo xam ne daf ko bokk ak waa Sénégal ku nekk war ci am résultat projet yooyu ñu gis ne bu résultat teewee moom moo ci mujj bénéfice wu jox la ci ay exemple président Abdoulaye Wade yal na yàlla guddal fanam may ko wér euh, bokk na ci li ko wàccee gannaaw boo xamee ne nit ñi d'accorduñ troisième manda mooy doomam nekk ci nguur gi yor ay post yu bari ñu jàpp ne tamit bu jëlaatee nguur gi doomam la koy jox kon boo seetee gis-gis ak doxalin daanaka bu lu bari bu nit di wàcc loolu moo koy wàcce loolu nag su mbir yooyu su amee pour nit ki falu dafay yomb moo tax toujours daa la wax benn mbir Sénégal néew nañu fal président fekk lu ci ëpp ñàkk pexey tax ki fi nekk lañ mere ba ëpp kii sës fi te loolu fekk mu ngi am peuple boobu pour ñu gaaw a mucc ci njiit bu mat sëkk dafay jafe léegi nag nga gis ne kon loolu moo tax faloom yomb loolu nag la koy sabab mooy ñim doon uta bëri na waaye moo ci gën a nekk buur loolu su biddiw lay aju kooku jagleel la kullun mu yasarun li ma xuliqal la ku nekk la tax ñu bind ko def koy yomb kon bi nañ ko bindee ak biddiw bañ ko booleeg mu Niass a ngi fi woon Tanor a ngi fi woon Keneen fi woon waaye gis nga ci utee biddiw rek ci la ñu rawantee kullun muyassarun limaa xuliqa lah ci côté zahir léegi nag su ko defee président bi muy falu gaa yi dañ meroon Abdoulaye Wade jàpp ne Karim Wade alal ju bëri mu ngi ci toog ak ñi ànd ak Abdoulaye Wade dégg nga Sénégal yëpp am procès Karim Wade il faut que ñu téye ko nangu alal ji mu yor delluwaat ko ci peuple bi kon projet la boo xam ne moom def ko bokk ak Sénégal waxta bi mu tàmbalee dossier Karim Wade Sénégalais yi bëriñ ci problème ñëpp dañ ci nekkoon ci gannaawam di ko xeexle alal juñ ci mën a defit pour gëstu alal ji Sénégalais yi amuñ ci problème léegi nag mu des résultat bi bu fekkee ne jàpp nañ ko tëj ko ne alamaan nañ ko nangam ci alal tëj nañ ko ñu xëy xëy mu génn dem xatar alal jiñ ko alamaan ba léegi réew mi gisagu ko yaa ngi dégg mënatut a dem bokk pour ut réew mi Sénégalais gis ne kon léegi ñun dañoo àndoon di xeex sanga waaye président bi ndekete yoo boppam la xeexal loolu mooy premier problème deuxième problème it dañuy wax ne euh, ku jiite da ngay yemale ñëpp ku def bu la jegee nga yóbbu ci yoon ku defut bu la jegee bu la soree doo ko yóbbu ci yoon maanaam ku def ak ku defut nga yemale léegi nag yàlla natt ko mu wax ci laamañam dossier yu bari moo ci teg concom te ñu gis ne am na ñoo xam ne bu ñu leen xëptale bu ñu dawee dugg ci moom rek day mel ni mucc nañ léegi nag su ko defee imaasu justice muy commencé daanu réew mi ne di jàngal loolu te loolu tamit point la boo xam ne gàllankoor na ci lu bëri point yi may wax nag mooy sabab mujj gi parce que d'abord bu la nit ñi di fal ak xol bu sedd ak kontaan ak bég am yaakaar ngay def ay acte ak ay wax muy di yaakaar bi di tas di tas di tas loolu mooy mujj loolu nag man mooy indi juraat leneen loo xam ne lu nit ñi teg bët lay nekk yal ci yàlla musal ba buñ ci yegg léegi kon dossier boobu Sénégal yi gis nañ ne dañu gis ne moom moo ci bos bénéfice wu ak waa ñi ànd ak moom léegi kon ñoom dañ jàppee loolu trahir Sénégal yi léegi nag moo tax bi xalifa Sall ñëwee ñu jiñ ko alal te alal ji ñu ne nangu na ne moo ko def waaye muy politicien bëgg a jël réew mi ñu jàpp ko tëj ko te kenn mënu wax ne defu ko parce que moo ne daa ko na ci xeeñ ko ay axam mu pare pour delloo alal ji alal ji ñëwut mu indiwaat nag beneen ñu ne ah bii moo ko def tëj nañ ko xeeñ nañ ko axam waaye alal ji ñëwut kon ñun Sénégalais yi gisuñ ci suñu bopp léegi nag su boobaa dossier moom dossier Macky Sall mu ngi chargé wu maanaam manque confiance bi mu ngi dugg ci xolo nit ñi loolu nag su fekkoon ne dafa am ci ñi ko jege ku xam biddiw lool mën na cee bañu a tàbbi lu ci ëpp lii dal ni ci entourage lay ne dégg nga su ko defee bu fekkoon ne Karim Wade bi mu génne dañ génne alal ju bari ne lii lañ nangoo ci moom dem gi mu dem xatar liñ ko xëñ àq fa dara dara du ci dox te moom day fay ba faw mais léegi kan moo la jege ku la mën a ubbil bunt boobu Khalifa Sall bu fekkoon dañoo nangu mu joxe alalam léegi su boobaa. ci lañ ko gën a mën a xeñ mbiram ci ñu bàyyee ko alal yi ba pare ne doo dem kon danaan man tëjuñ ma ngir nangu sama alal ngir delloo alal ji peuple bi mais dañ maa tëj pour xeeñ ma kon kii ah, yóbbul ma ci yoon pour justice daf ma yóbbu ci yoon pour intérêt kon su ko defee loolu tamit dafay nekkaat lu gën a chargé di gàllankoor euh, mujjam moom ci wàllu nguur léegi nag su Ousmane Sonko ñëwee léegi nag yooyu mooy jur Ousmane Sonko naka la koy juree mooy euh, Ousmane Sonko day feeñ gannaaw Karim doon na parti papam comme ni ñu ko mën a wax Khalifa Sall yàgg na ci politique jiite na mbooloo mu rëy suñ daanelee ñaar ñooñu rek ku génn réew mi seenu mer loo leen jox rek ñu jël léegi nag su ko defee mu ñëw ab discours yoo xam ne discours yu tombeek fi fi tolluwaayu réew mi la discours yoo xam dafay jéggi Sénégal dem Afrique ba dem ba biir Europe dégg nga discours boo xam ne arrangé wul ñu boof ci alalu réew mi wala tubaab yi ñu colonisé di ñu jaay doole bi booba léegi dégg nga di koñe suñ président yi di am fu ñu fu leen téye léegi mu ñëw ne dafay libéré lépp benn yoon discours boobu nag dégg nga dafay mel nit ñi dañ ciy jafandu comme kuy lab ci géej nit di la bëgg a xeetali ni ngay téye ci moom téye bu dëgër nga xam ne bu moytu sa boppam moom day lab nit ñi noonu lañ jëfandikoo Sonko bi nga xamee ne Ousmane Sonko jiñ nañ ko ñu ngi ñaan yàlla yal yàlla may ko wer jiiñ nañ ko euh, wàllum viol te li ko sabab tamit dafay sababu rek maanaam njub gi mu oote ndax li mu bëgg a def njub moo koy maye dégg nga li mu bëgg a régler ci réew mi njub rek moo ko attan xol bu jub rek moo ko attan parce que dañuy ci diina mooy xëcc xëñ sa bopp àddina pour sa diina baax sa diina baax def ci bokke boo jiitee nit ñi ku nekk nga jox ko àqam doo xeeñ kenn dara léegi nag su boobaa yow doo soxla dara yaa ngi dégg mais boo soxla yenn alal yi il faut nga xeeñ nit ñi seen alal ñu ñëw ronk ñu bàyyi doole il faut nga dundee ko te mooy la ñu waroon jot duñ ko jot pour sa poos man a fees moom mu ñëw wane ne moom lim jot a liggéey euh, kenn mënu ko taxal dara euh, ba pare tamit maanaam kenn mënu ko takkal dara. kon tey fi ne ni ku am fu ko mën a taqale na génn kenn rek moo mën a génn takkal ko mu yàlla te yàlla du génn léegi léegi nag su ko defee muy benn point léegi nag kon ootee nañ njub kon ci njub googu lañ koy fekk buñ ko bëggee daan bu buñ bëggee mu daanu wala bu ko yàlla bëggee nattu parce que nit bu ootee njub dégg nga yàlla su la bëggee nattu dégg nga wala nit ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoo ñoo mel ni ñooy sa noon dégg nga il faut ñu daaneel la ci côté njub pour sa image yàqu léegi nag su ko defee euh, buñ ko jiñee njaalo euh, jullit ñëpp am nañ droit ànd ak moom ngir ñaari mbir wala sénégalais yëpp mooy dañ ko tuumaal kon ki tuumaal moo war indi dégg nga ay preuve ñaareel bi ci topp mooy euh, daana nañ ñaari ñaari politiciens yaa ngi dégg ci loo xam ne Sénégal yi ci seen bopp kon dañ jàpp ne kon kii seen intérêt du mooy viol na nañ ko tëj seen intérêt mooy na daanu gis-gis boobu Sénégal am moo tax mu jaral leen xeex léegi nag bi mu leen jaralee xeex ba fii ñuy wax ni dossier boobu yeggul ndax sénégalais kon def nañ ci seen luñ man pour wane ne yàlla taxul réew mi taxul aji saar taxul mais intérêt président bee tax ak waa këram day na kon su ko defee loolu tax ci côté boobu mooy ñàkk gëm bi ñu bugg ñàkk gëm président bi moo indi lii te ay feela yu mu def yoo xam ne ñoom dañ cey jëlee ñàkk koo gëm mais fekkoon gëm nañ ko lii rek la bu yàgg moo xam day indi preuve wala mu ñàkk indi preuve mbir mi jeex mais dañ ko gëmul léegi na peuple yëpp jóg amaa nag bu fekkee ne dossier bi ñu toll muy dossier dégg nga euh, dossier Mame Mbaye Niang bi yooyu yëpp dafay bokk ci yi nga xamee ne euh, bu génnee rek peuple bi dañuy jóg ne pour daaneel ko tax te gis nga entourage gis nga euh, nit mën na am chance yor nguur mais am problème ñu ñu ñi ñi la séq dégg nga wax bi de Macky Sall buur la su amoon entourage bu baax yaa ngi dégg mën na mën na doxal ñaari maanaam ba pare mm-hmm. peuple bi ne ko doyalaguñ ci yow xanaa xamoo par rapport pouvoir bu mu am ci bopp bi mm-hmm. mais xam nga ñi la wër dañ la indi looy dana bëri loo yàqule fekk ci ñu la wër ci sa njaboot lala la dalee dégg nga wax bi de léegi nag moo waral tey lim liggéey yëpp lim liggéey ci tali mm-hmm. raay yi lu nekk def na ko moom Macky Sall mais imagine nga def lu mel noonu lu rëyee noonu lu yaatee noonu boo seetoo li xëptal nu muy bëri bari bari coow lu muy bëri bëri ci dëkk bi ma nga ci sànk yi mu ngay def kon borom bopp la mais nag loolu yëpp su amee dégg nga réew mi su fekkee ne dañu xiif dund gi yombul leen travaux yi lu mu bëri bari bëri man nañ ko bañ a gis beneen bi su fekkee ndox yombul courant yombul dégg nga wax be transport bi yombul dégg nga waruwaay yombul moo xam am ko yombul yi lépp ngi gën a cher su boobaa par rapport yi jot a xew maanaam tali yi lu mu yaatu yaatu dégg nga bato yeeg poor yeeg loo mën a teg liggéey na mais loo mën a teg yaa ngi dégg par rapport ak tamit sa kàddu dégg nga loolu mooy tax loo mën a teg duñ ko gis te pourtant ak teg nga loolu nag bokku ci euh, avenir ku jiite réew bokku ci bokku ci avenir ku jiite réew mooy liggéey ba pare ñu nar ko fàtte ndax yeneen i kàddu ak yeneen i jëf loolu ci mujj la bokk ci ñàkk mujj la bokk ci wàllu nguur leneen nag loo xam ne mënuñ ko wax waaye dañuy ñaan parce que lu tax mënuñ ko wax mooy euh, finna yu ëpp loolu mën naa feeñ yàlla mun na la ko woon ci baatin waaye sa doo ko bëgg a wax yaa ngi dégg ndax su ko nit ñi déggee ci kàddu am na ñoo xam ne mën naa gën a buural seen mbir ñu jéem yu bëri léegi nag moo tax dañ koy dégg dénk moom président di ko ñaan ndax ñi bëri na ñu koy xeex tey ñoo ko fateel kon buñ buñ am buñ amoon buñ xamoon démb wala amoon lu leen neex duñ dem duñ buñ xamoon ne dañuy ëlbatiku di ko xeex kon ñooñu euh, bëgg nañ ko dégg nga jàppale nañ ko fi mu toog ñooñu yàlla jaaral na ko si ñooñu kon lu mën a xew ñu ñu ñu ngi koy dénk te di ko ñaan bu bàyyi xel ñooñu mooy ñu ne ci ronam ak ñi koy xeex te ñu si bëri ñoo ñoo doon xeex ànd ak moom. mu bàyyi xel noonu kon su ko defee si question boobu foofu lañ koy yemale di wax ne moom su fekkoon ne demu troisième mandat dana dana dana dana am dabaatal bu mu am ci mujj bi am na ay saraxaat tamit ay sarax xeetu sarax yoo xam ne bu ko bu fekkoon ne ku ko jege xam na ko ba wax ko ko euh, lu ko war actuellement pour pour pour pour réew mi sedd waaye tamit loo xam dina ko dimbale ci mujj gu rafet pour fànq yu bëri ndax sarax as sadaqa tutfiu xadabullah sarax day fay merug yàlla te yàlla bu xasee mer finna mu naam finna nag du yem ci bopp borom kenn mën a def dara ay nit deeyee ci loolu xam nga loolu commencé na xew ci réew mi dee léegi yomb na kaso léegi yomb la te ci ay benn nit ñaari nit rek ñooy séq benn affaire boo xam ni ñaa ngi ci dee ni ñaa ngi ci dem kaso kon loolu ci côté Macky la buntu boobu lañ la ci lañ lañ ci doyloo ubbeeku noonu rek yaakaar naa rek ci point boobu sax yaakaar naa mënoon nañu ndar képp jotaay bi waaye li nekk suñu kanam ak xam-xam gi la xam-xam gu sell te wóor di docteur Cheikh Ousmane Mbow yaakaar naa ne mbokk yi ni mu leen ko waxee eh, tabarkalla di eh, faj ci zahir ak ci baatin nag ku sunu borom baaxal loolu waaye tam mu am jagle ci wàllum biddéew yaakaar naa ni eh, lii ba muy wax ci jamonoy nguuru président Macky yàgg na ñu xoolaat ñu duggut biir YouTube xoolaat ko da ngeen gis ni li mu ci doon wax ak ba tey amul lenn loo xamante ni am na ci benn différence macha allah di ko santaat bu baax ci leeral yooyu docteur ñëw ci beneen point boo xam ni xam naa ni euh, amaana sax mën nañ ci ne dañuy jaar jàll euh, muy euh, mbiru Sonko ba léegi la ñuy wax Ousmane Sonko ndax bu jotee réew mi dina yomb ci moom ginnaaw problème bi fi mu toll situation bi fi mu toll par rapport ak Macky njeexantelam est-ce que duñu xaw a wute ñoom ñaar différence dina fa am. waaw xam nga Sonko moom dossier am dafa gën a yaatu ba président Macky Sall ndax xeex ba jot nguur. fay fay yu bëri day am te fay bu bëree mën na su la yàlla dimbalul mën ngaa bañ a gaaw a commencé liggéey liggéey normal boo seeree Macky ñaari atam yu njëkk daanaka nit ñi ci dossier si ay dossier rek ñu doon xaar muñal nañ ko loo xam ne mën nañ ko ko muñal actuellement muy benn beneen bi mooy jotam nguur waxoon naa la du yomb hmm? alors que kon. Euh, tey laa lay gën a waxaat ba tey ne du yomb te nag bunt yu bëri ci ci Macky Sall jaare mën naa tax Sonko du jot nguur gi loolu nag duñ ko wax parce que ko waxee dafay euh, dafay ubbi bunt yu bëree bëri moo tax te suñu waxtaan bu njëkk jël nañ sa beneen bi tamit nguuram dina nekk nguur gu tàng nguuram dina nekk nguur gu tàng ndi ngir ñaar benn bi nattu lay ne bu yàlla natoo Sénégal beneen bi de li muy bëgg a régler bu dee li muy bëgg a régler réew mi dañ ko mën a muñ mais bu dee nattu bi ah nattu la nattu bi nag ñooy xool ndax jaroon na ko la jaru ko waaye loolu tamit ñu bàyyi ko xel kon moo tax jar na gunge ak ñaan jar na gunge ak sanax te wax naa la ne la dina bëri ñoo xam ne ñu ngi ànd ak moom fës ci moom bu jëlee nguur gi dana gaaw a tàqali ko ñoom dina bëri ñoo xam ne ñu ngi ànd ak moom jotagu nguur gi actuellement dégg nga su dëgërul dëgg danañ ko bàyyi balaa mu jor nguur gi yaa ngi dégg wax de dina bëri tamit ñu ko jublu woon bu faloo boo moytu nañ ko gaaw wan gannaaw daam dana bëri ñoo xam ne dañ naan déception la am ci moom kon moom euh, euh, xeex mu xeexam li ko yaral nag mooy xeexam mooy yaat te it ma wax la ci moom nit la koo xam ne ku ko bëgg a convaincre da koy teg ci xam-xam ak xel mu rafet doo ko teg ci doole tey lépp lu ko xelam jox pour mu nga génnee ko si dafay jafe kon du neexe a conseil nga wax bi ne parce que boo koy conseillé du wax ji wax ju neex wax ju rafet jee wax ju neex rek lay déglu mais danga koy tegal idée yu idée yu am solo ci côté xam-xam moo xam xam-xamu àddina wala même xam-xamu diina sax yaa ngi dégg wax bi de euh, maam nit la koo xam ne moom lu mu jàpp ne wér na ci xelam bu àddina bi yëpp wanoon gannaaw loolu sañ naa sañ naa jàkkaarloog ñoom kon nag yaa nañu yàlla dimbalee lépp lu mu jàpp ci xelam mu wér loolu rek laa la ci mosal ba beneen waxtaan. jërëjëf docteur yaakaar naa ni am na solo tabarkàlla xam-xam gaa ngi gën a yaatu ñuy gën di wéy ci jotaayu kàggu mag ñi tabarkàlla euh, docteur mu mel ni dañuy ñëw ci li nga xamante ne jamono ji fi mu toll euh, ci kilifa diine yi. li nga xamante ni tout le temps euh, réew mi dañuy naan na kilifa diine yi wax. Euh, te ñu ci bare bare dañ na am ne amaana dañ ne daanaka bu ñuy waxee itam amaana léeg nga gis ci réseaux sociaux yi ay ndaw yoo xam ne dañu nekk seen ginnaaw clavier yi euh, di wax naka su dul noonu kilifa yi euh, docteur taxawaay kilifa yi moment bi ak réew mi fi mu toll ndax bu ñuy gën a dem ci ay yenn procès wala ci yenn jàkkaarloo réew mi di gën a tàng. waaw côté boobu moom dafa am ñaari xeex dafa am xeex boo xam ne daf ñi ñiy opposé rek ñoo koy wax pour jàpp ne Sonko dañ koo ne kilifa diine wax ak président loolu côté boobu la am na côté boo xam ne am na ñoo xam ne ñoom dañuy wax parce que dañ bëgg mbiru tariqa mbiru kilifa diine daanu te ci occasion yu mel nii dañ ciy profité bu dee nag ñi nga xamee dañ dañ bëgg affaire tariqa ak kilifa diine yàq yàq ci réew mi te li ko sabab mooy ay aaya lu ñu leen ak ay hadis am aaya yu ñu leen waroon a firi te firi leen ko ñu mën a comprendre lu bari ñooñu maa ngi leen di wax ne même ñoom seen kilifa yi waxuñ yaa ngi dégg gis naa rek benn euh, mbokk euh, salafiya buy wax loolu ci benn groupe ma ne ko mais yow yéen am ngeen kilifa Ahmed Lo waxut de kilifa diina la léegi ci réew mi ndax kilifa diina suñ ko wax ne mooy ku euh, jiite mbooloo mu bari pourtant waxul comme ñoom seen liñ bëgg a wax mooy ñi ngeen def kilifa diina dañoo war a wax waaye moom ñi ñoom ni mu def qualifié ñoom lu ñuy xaar pour wax loolu benn la beneen bi ci tegu mooy ñi nga xam dañoo jàpp ne kilifa diine yi dañu war a wax kilifa yi boo seetee ci aji saal boo waxoon nañ sëñ Muntaxa wax na def na ci ay effort sëñ sëñ Mahi Niass dem na wax na sax ne wax nañu waaye dégluwuñu kon ak kilifa diine yu bëri def nañ ci ay effort yoon nañ ay nit ñaan nañ wax nañu président Macky Sall am na lu yàlla wàccee seddal xaw a seddal jamono jooju coow li mais actuellement kilifa diine yi suñu wax dafay laajte tam ñu wax ñu xiraat lan la ñu war a wax dégg nga ndax bu fekkee ne euh, président Ousmane Sonko dañ ne moom moo wax moom moo def léegi nag kon bu fekkee dañ xool ci bunt boobu ku bëgg wax lan lay wax mooy politicien bii di Ousmane Sonko juum bi mu juum si baat man bu ma doon kilifa diina dama yow Mame Mbaye Niang ne ko baal ko wala au président ne ko damaa bëgg Mame Mbaye ñaar baal Ousmane Sonko. parce que mais mais mais docteur Cheikh Ousmane ñu bëri foofu dañuy wax ni est-ce que carrément que euh, mbir mi foog mu leer ndax moo tooñ wala tooñul tam foofu la askan bi toll. ci dossier bii xam nga déformation da wax juum ci baat yaa ngi dégg mu war a euh, ñu war koo laaj na indi ay preuve te preuve yooyu bu indee mën na ko indi problème bu indi mën na ko indi problème. te léegi ñaata ñi ñaa ngi ciy dee ñi ñaa ngi ciy gaañu pour lu sedd maa la tooñ yóbbu nga ma ci yoon te suma baalee ñu arrêté loolu kenn du ci dee kenn du ci lakk bitig du ci yàqu dara du ci yàqu yaa ngi dégg te tooñ bi ma la tooñ mënu yàq dara ci réew mi wala léegi Mame Mbaye Niang bu waxee ko Sonko ne ko baal naa la lu mu mën a yàq ci réew mi mënu ci yàq dara mais léegi par rapport ak parce que par rapport ak ki ko ki ñu wax ne ki mu wax ne moo ko tooñ kooku dafa am mbooloo mu ko yaakaar pour mu élif mi suba te nekkul insaanu kaamil ni ku mat nit ki nga xam ne du juum comprendre nga kon mën naa tooñ mën naa def ëral ci kàddoom te loolu it am na lu ko sabab ci wàllu baatin ak ci wàllu sarax xëptal xëptal am na ci loolu ñun xam nañ ko yaa ngi dégg Macky Sall xëptal nañ ko mu wax lu mu bëggutoon a wax ba mu paree rëcc ko Sonko mi xëptal nañ ko mu wax lu mu bëggutoon a wax ba mu paree rëcc ko mais nit lañ koy def duñ ko def yàlla léegi nag su fekkee ne Mame Mbaye kilifa yi oo nañ ko ne ko baal ko su boobaa su ko baalee coow li day arrêté su fekkee ne benn moo bu waay juum te kooku réew mi yaakaar su ba nga falu te ñi la war a atte wala ñi jiite réew mi ak parti bi nga xam ne mooy réew mi bëgguñ nga falu kon loo leen may rek dañ koy jëfandikoo te loolu mooy coowal tey it léegi nag kilifa diine yi ñoom ñaan yàlla lañ man Macky Sall tooñul ñu ne ko waxal Mame Mbaye Niang mu baal ko wala ñu mën a jot ci Mame Mbaye Niang na ko na ko baal ñu teg dossier bi suuf comme ni nga gis amee xalifa moom it mu ngi dossier am nee na xaw ma 15 jours xaw ma bu ko baaloo mën na ko baal mais bu ko beesoo kon beneen dossier mun na ñëwaat ci kanam dossier bi léegi nag yooyu gis nga baalu gis amee xalifa indi baatu baalu su ko baaloo rek dossier boobu mën na tëju dégg nga léegi nag kon man kilifa diine actuellement mënuñoo wax ne Sonko mën nañoo mën a bañ a wax ne Sonko deful luñ koy wax yaa ngi wax bi rek parce que Sonko moo ko def moo wax nangam nu mu war wax léegi nag mu des juum ci kàddu loolu mën nañ ko baal mën nañ ko baale pour réew mi am jàmm beneen bi ci tegu mooy su nit ñi bëggee su nit ñi bëggee dimbale Sonko ci kii bi lan mooy tax ñu bugg ko dimbale mooy maanaam am na dossier yu ko fi jiitu yu ko gën a urgence pourquoi laaluñu yooyu ñu bëgg laal bi parce que dañu bëgg a daaneel kii côté politique la ko nit ñi di xoolee te boobaa pour ñu taqal ci waa pouvoir bi mënuñ ci dara dafay yomb. kon su ko defee duñ ko jàppale ndax moo jum ci kàddu waaye dañ koy jàppale ndax côté politique est-ce que nga wax bi de léegi ne su dossier bi jeexee tamit moo xala beneen bi su dossier bi buñ ko fayee ba mu sedd ëllëgee tamit dégg nga ëllëg moom it dañ ko waxaat moom Sonko ne ko defoon nga benn wax woo xam da nga caa juum ni ñi jàpp ba nga bañ baal la yow war ngaa baale loolu nag suba lay ne bu ko yàlla joxee réew mi nga bàyyi ko xel léegi nag kon su ko defee kilifa dina yi ñaan rek lañ man waa nag waane nag su fekkee ne justice dafay toll foo xam ne bu fekkee ne ki faree ci man bu amee dossier xam nga tey euh, bëri na ñuy xeexit dañ ne Mame Mbaye jiiñ nañ ko vingt neuf milliards loolu la wax Sonko wax na ne dañ laa jiiñ euh, ci dossier ci euh, société sàngam jum ci turu société bi am na ñoo xam dañ ne urgence du juumu Sonko bi urgence mooy vingt neuf milliards yi parce que lu tax mooy benn neuf milliards bu dee lu am la réew mi jotaar xaalisam moo ëpp njëriñ eh, ku jum ci baat ñu tëj ko lu muy jural réew mi dafa bëri gis-gis yuy tax nit ñi di si jàpp léegi nag bu dee kilifa diine yi nag man de li ma xam te gis ko mooy nelawuñ yendaluñ ñu ngi def luñ man ci ay wax ci suuf waaye tamit ñu ngi ñaan pour réew mi am jàmm kon kilifa diine yi tooguñ léegi nag kon su ko defee eh, dafa am benn addis boo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa wax mu ne euh, képp ku bëgg a laaya biir ku jiite nguur na ko def ci suuf bu ko def ci publiquement loolu nag dafay sabab kilifa diine yu bëri buñ jëfandikoo loolu maanaam li leen neexul dañ koy mu muñee ndax yàllaa leen ko teg nguur yàllaa koy joxe heure bu ko jeexalee mu jeex loolu buñ doxalee loolu nag man ngaa wax ne nañu wax fekk ñoom mënuñu wax beneen bi tamit euh, ñii war a jiite réew mi kilifa diine bu ñëwee dañ leen recevoir mais am na lu leen yàlla xamal lu ñuy xam ci nit ki suba yaa ngi dégg loo xam ne ñoom mënuñ ko fësal publiquement su boobaa dafay bëri yu leen tënk yoo xam ne ñiy wax ne ni kilifa di wax su ma sañoon mën nañ cee def nank waaye ñoom ñu ngi wax ci suuf te ñu ngi ñaan yàlla dégg nga te it seen njaboot ñoo ne ci ñaari camp yëpp dee nga te it ki yor nguur yàllaa ko jox kilifa dina yi mënuñ koo teggi fekk yàlla yàlla bëggul mu teggeeku kon nag su ko defee nangu dogal te ñoom dañuy nangu dogal ci li yàlla def moo tax am na ci yoo xam ne ci bëri muñ ak ñaan moo ci jëri ab jullit moo tax foofu laay wax ci tudd kilifa diine yi mbokk yi muy lu am solo tabarkàlla ci jotaay kàggu mag ñi dégg ngeen euh, lépp rek ci réew mi ngir taxawaayu réew mi itam ni ma ko waxee itam tabarkàlla ak euh, docteur Cheikh Ousmane Mbow tabarkàlla euh, fii ci résidence am ba léegi ñuy wéy moom ñu daal di ñëw ci kaddu yi nag docteur Cheikh Ousmane mu mel ni tukki ñuy waxtaanee ci wàllum tukki ak wuute tukki ak wute ñu bëri tur yi xam naa wute bi moom da nga gën a mën a leeral askan wi tukki bi ñu bëri xame nañ la ci yàgg nga ci di wax waxaat xam naa ni askan wi tam bàyyi nañ la xel ñi xam dañuy bëgg a forcer tukki te seen i wàll ñoo xam dañuy dem ba génn biti réew gën am jafe-jafe soog fekk nag am nga loo xam ne yàgg nga ko wax waaye amaana dañ la déggul woon euh, tukki ak wute euh, docteur Cheikh Ousmane Mbow euh, lan mooy seen différence tukki am na wute wute bi mooy bëggoon nañ askan wi gën a leer waa tukki ak wute bokkul wute gàllaaj la boo xam ne boo ko takkee bu la nit ñi di seet fii fekk yaa ngi fee loolu mooy wutee dafa dama ci defar lu bari nag pour ñu nekk tim réew di commerce ak ñi nga xam dañuy ragal wàllu yoon kaso loolu tax ñu tuddee ko wuutee wala gaa yi di seet fii fekk yaa nga fale loolu mooy wuutee tukki nag ci ñett façon rek lañ koy def yoonu suuf yoonu ndox yoonu jaw tukki dafa yàqu léegi lu tax mu yàqu mooy euh, bu njëkk ba danga nga daan bëgg a tukki ñëw sëriñ mooy la dëkk boo xam ne boo cay dugg géej ngay jéggi sa la sa nekk ci dëkk boo xam ne boo cay dugg si suuf nga si oto si suuf ngay daw ba yegg wala ñu la dëkk boo xam ne boo cay dugg ci avion ngay jël yaa ngi rek yoonu jaw moo gën waaye boo seetee avion yàggul ci àddina bi tukki dafa lal woon ci ndox rek ak suuf ñu dem ba jamono eh, koo laaj foo bëgg a tukki réew yi am doole yi lay wax te réew yi am doole li ci ëpp jaww moo fay dugal nit allahuma lu ñi nga xamee ne dañoo bëgg a dem réew te mënuñoo am visa ñu jaar yoonu suuf bay jaar yoonu ndox kon su ko defee ki nga xamee ne dafa jaar yoonu suuf jéggi ndox dugg ci réew su fekkee tukkim tukki tukki boo xam ne lépp yoonu suuf mooy la ci war a dox kon tukkeem day am gàllankoor ki nga xam ndox la war a duggee te mu dug dawee dawee duggee ci réew ci yoonu suuf tukkeem day am gàllankoor ki nga xamee nag moom avion la war a demee yaa ngi dégg ndax lu yàlla amal rek jaww ji dafay eh, maanaam planet bi eh, dafay dateel bu boo maam tukki avion bu amagut yàlla du àtte tukki ci avion mais bu xasee euh, man nasiru ilaa bi xadri ma maanaam bu fekkee ne dem na ba avion nag taxaw date bi jot avion ñëw léegi nag tukkim jaww day jël wàllam ci wàllu sirul euh, falak bi xam-xam bu xool la mais damaa jël sa temps ci analyse politique yi léegi nag kon su ko defee euh, ki nga xamee ne tamit mu des nag bés bi nga tukki mu des bés bi nga bés bi nga bés nga jënd bi dem bëri na ñoo xam ne seen tukki ci bés bi génn Sénégal ci la yàqu bëri na ñoo xam ne dañoo tukki yoonu suuf yoonu ndox def ci àll bi ay yoon te booy jug booy déparé rek am na fa biddiw yu toll te asir boobu day am ci yow nga dugg réew bés boo ko war dugg wala heure yoo ko war a dugg sa tukki am gàllankoor rek léegi nag am na koo xam ne yoonu avion lay jaar waaye bés mu dem moo yàq tukki bi léegi nag kon su ko defee loolu na dafay sabab ak koo xam ne tukki na te wat tukki ak koo xam ne dama ko ñëw moo ko war mu dem toog te loolu bi mbiru këyit amee la programme boobu sensé gàllankoor yu bëri nag ubbeeku te loolu dafay am ci mujj ak mbiru tukki loolu moo tax mu jaxasoo waaye nag yii ma ci wax yëpp euh, dafay tax tey euh, ki nekk bitim réew mu sonn lool ci ñaanlu mu ooma ma ne ko ah yow sa gàllankoor yi lay wax yëpp am na yu ci am ci yow waaye caabi ga lañ gisul bés bi nga tukki baaxul wala waroon tukki wala yow liggéey bi nga waroon dem mooy liggéey boo xam da ngay dem jënd marché ñëw kon ku xamul boppam day sonn léegi nag da ngay gis ñu faju ñaandu ci sëriñ ba sonn dee nga ñëw ma leen caabi ji ñu ubbi ko rek jàll am ñoo xam ne nag bés bi ñu tukki dañuy dem danañ am mais seen du am mujj ci tukki mu ñu am mujj ci tukki mooy mën nañ leen refoulé mën leen tëj kaso yaa ngi dégg seen giiru tukki dégg nga mën nañu nekk ci ay feebar rek wala dégg nga mënuñoo samp kër wala ñu am yónnee ko seen seen famille lekk ko ba pare ñu liggéey leen liggéey jàpp leen dégg nga seen alal yàqu seen famille wan leen gannaaw te dimbal naa si ñu bëree bëri bëri bëri léegi nag kon su ko defee yooyu tamit fekk bés bi nga dem moo waral luñ la dóor mu dal xam nga cet bu la jàppee feebar bu ñëw mën naa dugg mu ngi mel ni ku am virus sida feebar bu ñëw rek day am place loolu moo tax da ngay dee bu la yàlla dimbaloo kon nag su ko defee tukki dafa nekk mbir mu yaatu moo xam ne liñ def ci politique bi mooy jël suñ temps wax nga ma léegi ne léegi ñu ngi am ay 40 minutes waaw su ko defee alaakulli Euh, li ñuy bëgg a wax yëpp dégg nga duñ ko mën a matale ci yenn kii moo tax ñu tënk ko foofu rek loolu tax kayit yeeg kaso yeeg jabar tëlaak jabar ju baax ak ñu lay woor dégg nga loo am mu seey doo am bayra tubaab dafa bëri yoo xam ne gàllankoor la léegi nag buñ waxtaanee nit ki euh, consulté ko waxtaan ak moom mu wax ñi li muy dund ñu seet ko danañ xam ban bunt mooy buntam ak ban métier mooy métier ban boor la war a nekk ci Europe bi wala ci Asie bi wala Amérique wala yëpp alaa kulli luñ xam la te it ñu ngi ciy jaamu yàlla ci nit ñi. jërëjëf docteur Cheikh Ousmane yaakaar naa ni sa jotaay duñ ci doyal waaye tam mënul ñàkk ñuy waxtaan ki euh, xale yi ci jamono nga xamante ni wayjur yu bari bëri tëddatuñu nelawuñu euh, njaboot gi nga xam da leen euh, daanaka njaboot yoo xamante ni daanaka mën nañu nekk ak ñoom ci kër gi def ci ñoom lu baree bari waaye bu ñu génnee rek mbedd mi nangu leen moo amaana sax nga gis ñi nga xam ne ñoom ci biir kër moo xam ci wàll bu nekk ci wàllum të am na ñoo xam daanaka daal dañuy saafonteeg soxna yi wala sax ci wàllum njaaloo la ñuy wax amaana seen i wéyjur loolu neexuñu neexu leen te amaana dañuy sonn ci ñoom lool ñu ñëw ci wàllu të njaboot gu të ak wàllu woowu surtout ñi nga xam mënuñu téye seen bopp moo xam jigéen ñi la moo xam góor ñi nga xamante jaxasoo bi moom wàllum njaaloo gi waaw awalan mooy ñu ngi ñaan yàlla natt yooyu yal nañu ci yàlla musal boo xam ne xale bu góor la toll ci digg jam dooleem nekk ci jàng sàggane jàngam ndax anandoor ndax tuux ndax tuxu yàmba ndax drogue wu ndax topp xale jigéen yi yaa ngi dégg loolu dafa yàq ndaw xale euh, teel a fo loolu nag soo ko amee ci doom ku ko am ci doom rek da ngay tiit moo tax suñu yaay wax dëgg fa la ñu ngi si tiitaange yu rëy rëy su la dalee ci ku góor wala mu dalee ci ku jigéen boo ñëwee dañ la si dimbale ba mu teguwaat ci yoon dégg nga ni xam na ñu nekk bitim réew seen doom yi juddoo fa environnement bi yar leen wala boo leen defaree ci kër gi boo génnee mbedd mi nangu leen dégg nga su ko defee yooyu Euh, am na ñaan yu ñu ciy def yoo xam ne dafa lu gaaw la ci defar xale lu mu tëtë të lu mu yàqu-yàqu-yàqu yàlla mën na ko dimbale lu ci lu gaaw beneen bi ci tegu mooy su fekkee ne lu natiiram mooy jubadi loolu tamit am na yeneen xeetu ñaan yu ñu ciy def yoo xam ne mën na ko dimbale parce que mag ñi boo juddaan jour bi nga judd rek mën nañu xam bandi ngay doon wala agresseur wala sàcc wala borom xam-xam wala nitu nguur wala nangam léegi nag foofu la ñuy xamee ban yoon lañ mën a mën a jaar ci wàllu ñaan mais loolu xam-xam yooyu dafa riir ñu ko dajale bëriwul moo tax tey bu nit ki ñëwee dinañ xool bés bi mu juddu biddiw ba ca fenkoon dégg nga ak ban zaaru nit la wala nit ñee ko soppi rek may mën naa defarwaat taf-taf wala nit ñee ko soppi parce que natiram noonu la mel boo ko soppiwu tamit loo loo loo ko loo ko jox rek mu jël soppeeku def ko yom loolu yëpp dañ koy xool dañ koy dimbale ay nit beneen bi ci tegu mooy euh, boo amee xale bu jigéen wala xale bu góor bëgg du nekk njaalo ko du bëgg nekk fokkat ci xaleem am na loo koy def ba am jëkkër ba ba wala ba ba mu génne àddina du nekk fokkat bu amee jabarit bëgg tukki ba fi te kenn du man ci moom dara it am na loo koy tënkee ba góor bu ko tiimee sax du nekk góor te du ko bëgg it dégg nga loolu ñu ci liggéey liggéey yaatu ci bitim réew rawatina ci moodu moodu yi ci seen jabar yi ne fii ak seen jabar yi ne foofu parce que am jabar mu ne foofu nga xëy liggéey mu dem seeti faram te loolu bëri na loolu <laughs> mu am bitim réew moo tax moodu moodu yi ah yonent wax ne eh, la ci mbugal sonn nañ trop ku leen mën a dimbale nañ leen dimbale macha allah alhamdulilah. ma ase na question bi sax wàllum nef dañ koy faral di dégg euh, muy ñi nga xamante jigéen ñi nga xamante ni daanaka dañuy jëfandikoo loo xamante ni euh, ci beneen wàll lu nekkul ak baatin euh, ngir rek sodal seen njur wala amaana sax ñu bañ a jël li nga xam ne moo di ëmb loolu ci wàllum baatin réellement am nañ ci lu dëgër. waaw ku bëgg a càllu daal jarul jëfandikoo beneen kii boo xam ne mën na indi problème wér yaram ëllëg da ñu jox la garang yoo xam ne boo ko takkee da ngay sëyi fii ba ñaar fukki at yàlla dana dimbale doo ëmbati koo xam ne da am doom it bëggoo neef kooku tamit am na gàllaay yoo xam ne boo ko jëfandikoo doo ëmb feeg yaa ngi koy jëfandikoo feeg yaa ko takk moo gën nag dee nga léegi jëfandikoo yeneen garab yoo xam ne da leen di ay feebar conséquences yu bari ndeysaan jigéen ñi léegi am nañ ko loolu moom képp koo xam ne jigéen ñi nga xam ne dañu am doom bees ñu am doom rek nañ ci jublu ñu defar leen ko ñi bëgg a càllu yi tamit ndax seen wéer a wala seen njur seen yaram mayetu leen koy am na ñuy jëfandikoo da leen war seen diggante borom kër dañ ko def te terewut yàlla dana leen dimbale duñu ëmb duñu sonn duñu nàngam docteur mënumaa toog ak te yaakaar naa ne askan wi ñu ngi rëng-rëngi fu ne di ko wut si ñu bëri xamee ko ci wàllu euh, góor gu mënatul boppam muy wàllum néew kattan di télé bi moom it mu nekk loo xamante ne amaana euh, daanaka à distance sax da nga koy consulter te ko consulter à distance bu ñu nee docteur yaakaar naa dafa doy sëkk ci zaahir ak baatin yaakaar naa kooku kenn dootu ko wéranteti euh, ndax ñu ci bëri calmant la ñuy joxe waaye danga ne faj mu wér la ñu wax. waaw fan yii rek am na ku ma koo xam dañ ko jox garab garab boo xam ne heure bu ko jëfandikoo fii ba fii ba bët set dégg nga dafay dëgër heure bu bëggee sëyi sëyi mais suba faaw mu jëlaat ko loolu du faj loolu yàq la yàq nit la parce que heure boo day mel ni drogue rek boo ko amatul doo man dara loolu du faj loolu yàq la ka cay jëfandikoo jëriñoo mooy ki koy jaay ndax heure boo ko jëfandikoo mu jeex da ngay jëndaat dafa am ñoo xam ne euh, la ñuy jaay xaalis bi ñuy jot lañu itteel waaye yow sa wéré di ak sa dund soxlawu leen dégg nga nit koo xam ne yow mënoo dara ci soxna ñu bëgg tey nga man lépp lépp tey dañ lay yàq dañ lay teg loo attanul mhm. ñuy teg sa loo attanul teg sa deret loo attanul te am na fooy toll ci aar sax sa cardiaque wala sa feebar yu bëri mën na mën na caa jaare ubbeeku mhm. kon loolu am bànneexu tey toog semaine mënoo sa bopp dara nga faj naturellement nga wér moo ko gën man loolu laay conseillé ñi nga xamee ñi nga xam dañuy faj ci côté boobu li koy sabab nag bëri na lekk yi nature yi dégg nga feebar yi lu ci mel ni jabet lu ci mel ni hépatique lu ci mel ni ulcère lu ci mel ni hémorroïde lu ci mel ni siti mhm. lu ci mel ni rab lu ci mel ni ñi nga xamee ne seen jabar yi dañuy am rab mhm. daa am rab yoo xam ne day téye sa ngóoru jëkkër yaa ngi dégg mhm. yooyu yëpp li koy sabab daal bëri naa laa ko laale mais bu dee hémorroïde la dégg nga am na ñu neex a faj am na ñu naqadee faj ndax feebar bu tombeek sa nature euh, ak bu tombewutoo sa nature du bokk te hémorroïde moom daanaka ñëpp la dal actuellement nit bu demee ba gis ne bëtam yi gis baa ngi wàññeeku dégg nga mu ngi xesan dégg nga bu demee ba gis na gannaawam day métti lu bëri ay faaram digg gannaawam ndiggam gaaw a yëngu tànkam yu oom yi di commencé di métti bii bi def ngelaw di seere dégg nga pour mu dem toilette du yomb du xiif yaa ngi dégg wax bi de ngóoram gis na ne mu ngi dellu di tuuti yooyu yëpp ci xeetu melokaani émoride la siti bu la bu la dalee te new na ko am émoride te amoo siti ndax képp kuy ñaq rek da ngay am siti mais nag mën na bëri yaa ngi dégg ba indi nag di la gàllankoor sa deret dégg nga su ko defee euh, éjaculation siti daf ci ay trop dégg nga feebar yi aju ci bëñ feebar yi aju ci nopp ku yor siti daf lay yomb feebar yi aju ci bët glaucome ak yi ci aju ku nekk ko daf lay yomb léegi nag soo ko boolee nag am siti am hémorroïde am diabète dégg nga am tension am yooyu yëpp su ko defee pour nga nekk nit carrément du yomb moo tax mag ñi bu njëkk ba comme duñu naan lekk lekk yu am diwéeg yi ci aju mm-hmm. da am 100 di takk jànqa di ko di ko déverser mais léegi ban mag moo man loolu parce que lekk yi daa neex te lekk yi neex ko terwu sa bopp rek foo toll yaa ngi feebar wa amaa man xaafa maqaama euh, rab wa amaa man xaafa maqaama rabbi wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata yal mahwa li neex sa bakkan te baaxu sa yaram danga koy danga koy wan gannaaw mais affaire lekk yi dafa neex tubaab bi indi nañu seen lekk yu neex yi te doomu bëgg lu neex kon nag su ko defee tamit am na yeneen xeetu garab yoo xam ne kuy lekk lekk yu neex yi da nga koy faral di utiliser boo lekkee lu neex la mu yàq boo naanee rek mu yàq programme boobu fekk bànneexu nga ci ndax lekk moom bu xasee romb porox gi rek neex-neex bi jeex na dañoo neexit am na fu neexit fi neexit fi ñu wax neexit ci cëru nit léegi nag kon su ko defee euh, mu góor moom dafa indi problème yëpp am na ñoo xam ne dañu takk xala am na ñoo xam ne ko juddaale am na ñoo xam ne dafa bëri daal dafa yaatu waaye nag li ma jël sa temps moo bari hmm, docteur si benn simili yaakaar naa ne waxtaan daanaka jot euh, jotaay bi ñu ngi koy fas yéene rek ndar kepp fii euh, muy suuf si nga xamante ni yaakaar naa ñu bëri dañ koy wax waaye ñu ne nag jot ci yombul waaye mag dama ne nag lu baax du yomb euh, suuf si ni ñoo ngi koy waxtaane muy suuf su doy su doy waar si nga xamante ni daanaka ku ko téye rek mën nañ ne moom sa sa jamono gën naa jagati suuf si nag docteur lu tax ku ci nekk neexu la jot waa suuf si de nit daan na dem ci ab sëriñ dafa ñaar fukki at soog am suuf si di ko liggéeyal di ko bayal di ko defal lépp mel ni ku soxlawul dara ci àddina mm-hmm. mu xëy mu jox ko suuf si wala nit daan na ko am fekk dafay jël lu mat fukki géet fukki géetu nag mm-hmm. ñoo jox ko si àddiya sëriñ bi sëriñ si moo tax dañ ne ñu bëri naan ay nag du tar bii day ñëw joxe alal ju bëree bëree bëri bëri mm-hmm. pour am secret bi te mag ñi sax duñ ko daan nangu di joxe ci alal dañ la lay defal waaye jox la secret bi yombul leen woon en général ñi leen di liggéeyal ay fukki at ñaar fukki at xam ne seen njaboot dañ naan kii moom alku na waaye heure bu ñu ko yeeyee ba mu ñëw dana fi ubbeeku ba yéen ñëpp moo leen di yor yombul moom suuf si yombul ñi ñu koy defal it bëriwul ñi ko mën a engagé it bëriwul ndax laaj na ay sarax yu am doole mais nag alal mooy maye alal yéen nga am 3 millions ci benn business mu génne la 6 millions wala 8 millions wala 9 millions noonu la rek business la rek kon alaakulaalin eh, eh, pour ñu bañ a jël sa temps nit dana ci danañ ci jaaree samp nit ci alal ci bayra dégg nga ci wàllu kaaraange ci wàllu bu bëree bëri bëri waaw kon su ko defee sa temps bi mu ngi dem yaa ngi may signaler rek macha allah. docteur lan ngay tàggatoo bég nañu nag yaakaar naa sa jotaay duñ ciy doyal ndax xam-xam dafa neex ci surtout ñu koy déglu duñ ci doyal mukk euh, looy tàggatoo. maa ngi gërëm maa ngi sant lu ci jub ci yàlla la lu ci dëng ci man mii la maa ngi jéggalu képp koo xam ne comprendre loolu. képp ku ci soxal naqari maa ngi lay jégalu di ñaan yàlla réew mi yàlla fi yàlla def jàmm nit matut kullu bani aadama xataa wa xeyrul xataayin atawaabun doomu aadama bu nekk day juum ñi gën ci ñuy juum na mooy ñi nga xam ne mun juumoo nangoo tuub bañ kon ñu njëkkeeku suñu bopp lépp luñ juum ñu ngi ciy lépp luñ wax lu rafet ñu ngi ñaan yàlla ñu bokk ñëpp lu rafet rek lañ jublu ci affaire bi ñu ngi ñaan yàlla réew mi le 30 bi xam ne am nañ ci tiitaange yu bëree bëri yàlla dafay jàmm barke yonent bi aleyhi salaatu wasalaam allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallam jërëjëf euh, mbokku téléspectateurs yi euh, jëmm ju baax ji nga xam ni moom lañu ñu toogalaat di docteur Cheikh Ousmane euh, Mbow la ni ñu ko fekk si waatee saa su ne ci résidence am fii si diwaanu Parcelles Assainies unité 13 di borom xam-xam di faj ci zahir dama nee naa leen bu ñu waxee docteur dafa doy sëkk kii faj ci zahir tam waaye itam ci baatin di faj itam à distance ñu di ko santaat bu baax a baax a baax ci disponibilité bi nga xamante itam may nañu ko yaakaar naa kenn dootu ko présenté biir réew ak biti réew ñu ko ci xam-xamam bu tamit te wóor tabarkàlla di borom xam-xam macha allah di ko ziyaara tam bu baax baax tam di ko ndokkelaat numéro téléphone baa ngi noonu numéro yaa ngi noonu ci écran bi 77 la 865 03 03 numéro boobu am na whatsapp képp ko xam ne woo ko rek te jotu ko ci rek xam leen itam euh, dafa nekk ci ay euh, yite rek ci ginnaaw si boo leen ci bàyyee vocal rek allah ci kàttanu suñu borom rek dina leen euh, tontu beneen numéro bi ñu di ko santaat bu baax a baax di ñaan allah buur bi wa